Euh, ci ni nga xam ne nii lan àndee tey wuy si sunu xarit sunu nawle di booy Niang numéro 2 kenn ku ne xam na ba mu bëree ba tey kenn gisu ko fenn deful sotti tey mi sotte bu njëkk tey mu war a jàkkaarloog presse bi tey wax li ci li mu jóge waxee ci li mu jëm kon dañuy ànd teewlu Boy Niang 2 li tax mu woo presse bi ak lan la bëgg a wax. Pël maa ngi lay siyaare. siyaare. ñu ngi leen di nuyu de leen ziar di leen jaajëfal comme ni ko Fadel waxee rek tey Boy Niang moo woote ndaanaan champion moom nag moo ne dafay def déclaration Olof Ndiaye nag nee na euh, nit bu la woowe bu la waxut da jox ñu teewlu ko mu wax ñu su ko defee question yi daal di dugg mbër ñu ngi leen nuyu di leen ziar. waaw maa leen nuyu bu baax di nuyu yéen ñi teew fii yëpp soo mënoon a jaar ci ku nekk si tam fu dama ciy jaar quoi di leen nuyu di jox seen cër ak seen wàccuwaay. di nuyu population sénégalaise bi nga xam ne ñu ngi ñu seetaan à travers parce que léegi moom dëkk bi dox na dox boo xam ne ku nekk sa téléphone rek mun nga gis lu nekk xam lu nekk lu xew. di nuyu monde làmb bi nga xam ne foofu laa bokk. di nuyu CNG bi ñi nga xam ne ñoo coiffé ñoo dirigé ba ci suuf ba ci mbër bu gën a ndaw. di féliciter Lions yi. di profiter occasion bi. di leen féliciter bu baax. di jëkkee ci njiit bi Matar Ba. di ñaanal tamit suñu boom defal leen ndam ñu indi coupe bi parce que loolu fierté sénégalais yëpp lay doon te ñu ñëpp ñu ngi koy ñaan day wax ni jot na te lu jot moom yomb daal na ko suñu borom yombalal di leen nuyu di leen félicité bu baax a baax. génn nañ ci ay élection maa ngi félicité ñi nga xam ne ñoo gagné. gagnant yi ak perdant yi ñu ngi félicité ñëpp parce que gërëm gi gërëm bi génnul gaal gi. di nuyu ñi nga xamante ni ñoo bokk sama gox fi gaañe nekk sumay nit ku ci mel ne Ablaye Tumbo Isaaxa samay nit yi fi nekk tamit a perdre ñu leen ñaanal jàmm beneen yoon te ñu gañe lu gën ci gox bi rek suñu boom def ko daal. di kontaan di retrouvaille bi parce que gën naa leen a gis ñun gën ngeen ma gis gën nañ waxtaan tamit koo xam ne rek dama nekk mbër boo xam ne dama estaf waaw du ma di génn nii rek di wax noonu damay wax rek si wal bu joree war a wax boo xam ne toog nañ waxtaan ñun ma waxal ma wax instant yii nekk moment boo xam ne dañu war a wax. staff bi seen dernière bi ñu def <coughs> ñu xamal ma ni dama war a wax. dama war a génn adresse ay paroles yoo xamante ni dafa bari ñu mu concerné. ñu wan ni ma da war a génn wax moo tax. loolu naawoo woo Lamine wax wala moo woo pour mu rafet wax mais dafay des. te ku ne mën na gis boppam. moo dama ni naa woo ndoo mu doon benn wax ku nekk gis ci lu ñu ci war a gis di suñu doyen suñu mag suñu lépp mu ibakan bu suñu làmm ñu ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay. waaw di wax ni nag. waxtaan bi fenn rek la boo gisee ñu woote fu ñu commencé moo dafa am ci lu ma jugee mooy suma combat ak Tapha Tine ma koy nuyu da passage di ko félicité di ko wax ni làmb noonu la di ñaan ndam di jikko parce que ñu ñëpp ñoo bokk gaal gi te dañoo wax dañoo war a fexe gaal gi di jëm kanam rek mais pas mu dellu ginnaaw bëre naa ak moom ñu gis li ci xew yëpp ma am ci blessure ci biir làmb ji bëre ko ngor fulaak fayda ba yàlla def li mu def waaye li may njëkk def rek mooy di ci jéggalu suma staff parce que après wax bu nekk teg nañ ko seen kaw le fait tamit ñoom li ñu leen teg seen kaw yëpp man la bu tax mu nekk man mooy man maa am blessure ci biir làmb ji génn ma wane ko mën nëbbu ko bëreeg moom mu jeex ba li ma ci fekk fekk ma ci ñii ñu jël course bi teg ko wax ji ñii ñu jël sama papa teg ko wax ji ñu jël père Bougane teg ko wax ji waaye yooyu yëpp di wax ne man la maa ngi jéglu bu baax suma estaf yi di leen baalu àq xam ni làmb affaire de deret la affaire de sirit la hmm. te affaire de mbër la am na fu muy toll da ngay topp sa deret topp sa sirit topp sa affaire xale parce que loolu am loolu la moo tax mënuñu woon gi arrêté di wax ni dañoo gaañ ci combat bi waaye dañ ko continuer mais ñu xam ni tamit ñëwuñu pour wax ni dañu gaañu après pour sarteel histoire Tapha Tine suñu borom may na ko ndam ci kaw booña amul benn problème sarteel luñ ko mais nag bu ñu bu ñu bu ñu bu gaañoo ci làmb bu ñu pare il faut ñu wan ni dañ gaañu wax ko dem seen marché seen bu xool ñu xamal ñun dañu gaañu ñu yab ñu oto sapeur bi ñu dem ñu confirmer ne dañu gaañu dañu am ñaari fracture su ñaari baram mais loolu nag nekkul dañoo génn loolu pour salté ah ah boo ñaa am mbër boo xam ne war na mun a daan gaañ gaay tam war nañ ko mën a daan parce que làmb la ñëw ko sekk amul benn problème ñu ngi koy féliciter suñu frère Tapha Tine di ko ñaanal jàmm ak yeneen mbër yëpp. côté boobu ci ñu génne foofu la ñu mën a wax man na lu tax du ci yaatal mooy promoteur bi daf ñu wax ni dañu am dernier face à donc kon contrat bi jeexagul ñu koy ñaax moom tamit ñun ay nawleem lañu te bëree nañ ba pare te mi ngi bëgg a yàgg li mu war ak ñun mu def ko rek parce que ñun tamit lu ñu war ak moom def nañ ko. préparé boo ñaar tafaati combat bi def deux ans lañu yor yëpp ñu def ko ci donc bu ñu paree moom warul chercher de midi à trois heures. na def lu mu war a def ak mu jàpp signature bi jox gaa yi seen xaalis muy man muy Tapha Tine parce que dañu am ay mbokk ay soutien de famille lañu. loolu moom maa ngi koy lancé bu baax a baax li mooy ma am fi ma jëm muy suma diggante ak Balla Gaye foo ma dudd turam parce que son contrat moo ñu boole maag moom moo ñu tënk muy Gaston Production donc damay am sanction ñu turam directement ñu taxaw seen euh, Gaston production muy suñu papa Gaston woo ñu këram taxawal suñu komba Gaston ba muy taxawal suñu combat man maa ngi ci combat. Mm-hmm. man ba muy taxawal suñu combat mi ngi ci combat. père Gaston woo ñu ak staff bi ñu mu war a waxal ñu wan ne ko Boña dafa nekk ci komba mu xamal ñun loolu intéressé wu ma. nekk ci combat bañ a nekk ci komba daan ak daanu yàqal ab ngeen bëre. ñu ne ko amul benn problème mu waxtaan a gars yi ci kase mu trouvé cachet boo gisee nag ma génne di wax nii moo dañ ma wax loo. sinon damay toog sama rukk ko ñëpp xam nañ boo ñaax nekkul mbër boo xamante ni chaque jour benn site ñoom ma wax sax doxee ma noonu. da ngeen di doon doon sama nawle ma war di wax ak yéen mais su ma waree wax rek laay wax. waaye lu fees moom dafay tuur. Gaston woo ñu këram ñu toog waxtaan trouvé temps d'entente signé ay contrat papier. ma si sama ménage signé muy père Bokhane jox garçon garçon signé jox ñu muy suñu papa garçon ñoom tamit ñu def noonu garçon ci ay kàddu mu wax ñu oralement ne Balla gay dafa war a bëri ak Bombardier yow da nga war a bëri ak Tapha Tine boo dem pare ngeen bëri boobu buñ juumul ñun ñi ñëpp te kenn mun fee wax sa moom lu amul boobu Balla amul benn combat am muy moog Bombardier tamit benn combat la amoon muy maag Tapha mu wax ñu boo leen pare yi ñaar ay bëri foofu suñu staff professionnalisme laaj nañ ko ñu kañ lañ war a bëre mu ne mu ne rek mu leen jox date parce que Pape Thialis joxagu leen date Pape bu leen waxoon suba suba tat bi ngeen di bëre ma wax la yaa Balla Gaye date bi ngeen di ñu ne ko amul benn problème comme ñu ngi déglu laa ma ji daw quand bala Gaye nag depuis bañ jotee sama avance lu bari xew na fi mais ba léegi déggoo boo ñaa wax génn nañ fi ma nekk sama préparation combat ñu ne dañ may déstabiliser génn waax daane ne booy ñaa bu daanoo duñ bëreeg moom bu daanoo ñu bëreeg moom. estaf bi toog réunion ma ni gars amul wax nañ nekk suñu biir rek li ñu jóg nañ ci nekk amul wax parce que tontu moom da ngay bàyyi ba tontu ci safee ñu continuer chaque jour ñoom ñu nekk ci débat boobu di ñu déstabiliser di ñu waxal ma bëri ak Tapha suñ boom def Tapha Tine gagné ma par avertissement. ñu commencé xaar ñu sax ni gars yi ñibbi ci stade bi lañ commencé. ak seen i snapkat wax liñ bëgg a wax ñu bëri ak moom jeex na si fini kii du mbër wax li yaafar na wër rond point ak wax dinañ wax ba léegi yéen ñëpp ngeen mën a seere boo ñaar déggoo leen ko mu wax ma nekk sama rok yàlla nag suñu boom dafa mën àtte nit ki moom bu la fayee sa bool nga mer li nga leble moo neexul suñ borom àtte ñoom ñu bëree def pire ka daanu booñaa sax yaa ngi dégg ñu daal leen ci géew bi mën naa leen mën naa wax sax ñu daal leen trois fois ci journée bi daan la ci géew bi daan la nga jaaxaan daan la par avertissement nga dem CNG ñu daanal boobu ba léegi gisoo boo ñaa tamit génn wax dara ba léegi ñu ngi suñu toog waaye nag xam nga làmb dafay dox ñun boo gisee ñu wax sax yooyu wax loo wuñu après dañu déggaat yeneen tamit ba léegi ñoom bàyyeekuñu ñu dégg ñoom ñu def ay sotti daane Balla Gaye Gris Bordeaux lay bëree avant muy bëree Boy Niang war a Boy Niang dafay xaar ba ñu Balla Gaye bëree adversaire yi war a bëri soo a bëri ñu gis ci nag xam nga làmb yaatu gis ci ay wax yoo xam ne yegg si ne ba ñun donc nag bu yegsee ñun dañuy jël suñu matukaay du Boy mooy jël matukaayam mais estafam mooy jël matukaayam mhm. ñu jël suñu matukaay toog réunion génn ma pour ma wax li ma war a wax dafa que ñoom nu ñu gisee affaire yi sax waruñ pour bëri ak man mais ñun waa kër Boy Niang tamit dañ leen wax nii par rapport ak suñu réunion ak bu ñu toog waxtaan lépp ñoom bu ñu wutee dara rek ñun yombalal nañ leen ko pour ñu xam ko tey. Balla Gaye bu fekkee dafa bëri Gris Bordeaux man Boy Niang du bëreet ak moom moom dafay bëri Gris Bordeaux pare bëri Eumeu Sène si ñaar adversaire wala mu kum ci teg mais man damay bëri ci ak beneen adversaire pour Sénégal yëpp ñu xam ko ak monde lamb yi nga xam ne dañuy xaar combat Balla ak Boy Niang ñu wal leen ne Balla Gaye bu fekkee dafa dem bëre Gris Bordeaux man Boy Niang dootuma bëre ak Balla Gaye am na droit pour tànn adversaire bu ko neex moom lay bëreel comme moom am na droit tànn adversaire bu ko neex bu bëreel man tamit dama am droit tànn sama adversaire moo war a bëreel. dootoo doxuma loolu parce que man c'est Gaston production moo tëgg sama combat ak moom. instant du wax ci keneen Gaston production moo tëgg sama combat ak jox avance jox ma avance te yéen ngeen xam début bi yëpp fu mu egsi fii hmm. moom dafa am droit de dafay seeti Gris Bordeaux pour bëreek moom avant Boy Niang te ñu xam ne Boy Niang moo njëkk a contrat te ñu xam ne Boy Niang moo njëkk a jot avance ci ci ci ñu Balla bëreet yëpp. Gris Bordeaux Balla Gaye dañ ko ko dox mu yàqu. Gris Bordeaux génn wax jël avance delloo Gaston ne duñ bëreeg moom donc man ba may ñëw di si yeeg Balla amul benn combat. bu dul Bombardier wax moom waxtaan dëgg rek moo neex. ba ñu si Balla benn combat la am boo xam ne moom la téye muy Bombardier à part Bombardier Boy Niang nga am comme combat maanaam xel mënul nangu nga bëgg tëb Boy Niang jël benn adversaire te ñun ba ñu demee stade bi dem nañu toog ak Père Gaston mais wax bu ñu wax nekkul wax bu tegu wax dalu suñu xel. bala Gaye dafa dem faju bu demee bu wéree dina bëri yow mois de mai bu wéru day bëri Gris mois de juillet loolu wax teguwul xam nga wax teguwul dafa dem faju ji amul problème na dem faju mais bu faju joo ba ñëw. mooy war bi nga mbër bi nga war a bëreel moom ngay bëreel munoo waaw maanaam munoo tëb mbër dem jëli mbër munu ma feebar feebar ci Moodu Anta ma bëgg a wéet ci ci Fadel làmb doxewul noonu léegi nag làmb ji mënul nekk affaire de affaire de deal affaire de mafia ñun doxewul noonu waa kër Boy te ñun ay doomu Pikine lañu te Boy Niang mu nga ko gis ak ñu muy àndal mais dañoo staff boo xamante ni yàlla dafa leen may baax may leen teraanga ci réew ñu nekk ay kër ci réew mi bu ñu waree wax danaan am mais suñu war a wax dañuy toog waxtaan ñu dañuy génn nga wax lii ak lii ak lii. ba waar ak moom dafa yàgg maanaam suñu parcours làmb dafa yàgg. merci man dama débuté làmb rek yàlla natuma ak mbëru géejawaay sama combat yu bari non du du làmb bëri dóor sax mais bëri simple la commencé. <laughs> yàlla natuma yàlla natuma yàlla natuma ak mbëru waay parce que carrière day demee noonu. ma commencé bëreeg marre. bëreeg bëreeg faram faram deux mille faram tuuni bëri nañ maag moom. daan na marre daan faram daan Pam Mbaay daan Eumeu Sène Junior daan lamin Goro. non non mbapat bi laay ñëw pare. waaw dañuy déglu rek ñu waxtaan bu ñu déglu waxtaan lépp day ñëw waaw dañuy déglu waxtaan parce que waxtaan bi dafa solo tamit ba dama ñëw fii pour leeral quoi. ci mbapat bi laa commencé. ci mbapat yàlla defal na ma daan marre. daan Pam Mbaye ci mbapat daan Eumeu Sène Junior ci mbapat daan Lamine Gora ci mbapat daan Faram Tuumi ci mbapat donc fa la ma yàlla commencé ak ñoom ma dugaru arène tamit sama adversaire ñëw féete côté boobu chaque jour dama koy wax ne nekkul maa géeje waaye guerre parce que dama fa am ay dem naa fa am fa turandoo am fa ñëpp mais laa moom moom ma féetale côté boobu ma ñëw day école mi nga xam ne temps yooyu moo nekkoon liet ma am day ak mbiis day saakajoor day ak day guy gi. Hmm? day day la dëgër dë day sàcceet soo ko day la dëgër dë mais côté boobu damay wax mention spéciale parce que guy gi ak la dëgër dë xam nga tax parce que boo duggee seen gox am na mu fa def rek ñu war a bëreeg man dañoo bëreeg man sans ay dem gauche droite promoteur dafa dox suñu combat ñu ñëw dëgër seen ñu bëre yàlla nag moo yor ndam. la de Guiers dama moom war na mu mën a daan guy gi dama bëreeg moom daan ko war mu mën a daan hmm. te Lac de Guiers man ma rakku Balla Gaye laa bëre am fu ñu jaar ma duma ko ci laa ma daan ko muy Sa Thiès te jour boobu noonu dama bëree guy gi ba pare défier ko moom Balla Gaye te duma ko nëb ma dëkk ko. ñu wax ci ay wax duma moroomam lii ak lii ak li Sa Thiès bëre ak nees parce que ñu ñëpp ay nitu làmb lañ moom mënu ma fee wax créer loo xam ne amul. mu taxaw ci plateau bi daan ne fi nekk li réy làmb bi nañ ñëw. Lamine Samba ne ko mais combat bala Gaye combat Boy Niang ak Sa mu ne combat baa ngi noonu dañ ma jox avance ma yóbbaale. dugal raxam ci sama kombaak moom débat bi jug ñëpp bëgg ko man tamit ma nangu plan foo am boo fa bëggee il faut nga jaar ci yoon bi ma nangu bëreeg moom ma Sa Thiès ñu bëre ma daan ko ci avec la mu nekk champion tamit man nangul ko ko. ñu continué waat di dox sama combat ak Balla Gaye chaque jour dégg nga ko de gauche à droite midi nii dañuy bëree duñ bëreeg moom nii ak nii ba suñ combat dem ba taxawee. donc wax dafa waroon jeex foofu. parce que contrat moo ñu tënk. te bëgguma bëre Boy Niang donc bu jël avance am boo jël avance nga lekk ko yóbbu sa kër moom mu jël avance yóbbu sa kër da ngeen a war a bëre mais dama bëgg waa kër Balla Gaye muy moom ak estafam ñu comprendre benn affaire que ñun suñu combat ak ñoom fi mu fii lañ ko teg. le fait que dañoo war a bëre wala duñ bëre wala duñ bëre mais ñoom bu ñu jëlee seen décision am pour tànn pour mën a tëgg ñu tënk ñu ñëpp yow nga am pour tànn daanaka Gris Bordeaux ngay bëreen Boy Niang tamit dafay am pour tànn ne du bëre yow parce que loolu ku ne da koy am. Balla Gaye bu bëree ak Gris Bordeaux dem bëree ak Gris Bordeaux xam nga kañ la ñuy man boo ñaar du ma bëree ak moom am naa plein droit ak suma staff dañuy seeti beneen adversaire moom tamit mu dóor mu continuer carrière am parce que man làmb bëri na lu bari lu ma def. même bu ma bëriwul lu bari lu ma def ci làmb même su ma bëriwul moom sax daan ko dama bëri waa lu bari lu ma def. damay dem ba bëri ñu ma war a bëri mu jeex ma dëpp joxe ay revanche du jël ay revanche parce que làmb lool moo fi nekk. mooy ñaar li ñu jaaxal li ñu jaaxal mooy wérul euh, bëreeg Gris Bordeaux loolu noo xam ne da ngaa xaatim ak bi ngeen di xaatim ci lan ngeen xaatimoon da ngay bëreeg Balla Gaye ci booy aat du bëri a jaaxal waaw parce que non nga ne boo wëree da ngay kii mais boo wëru lekk da ngay bëri loolu loolu la loolu loolu xamuñu fu mu tegu hmm. mais xam fu ñàkk xam fu mu tegu nag moo tax ñu am pour jël suñu ay responsabilité ay xale lañ ci làmb nag mais dañuy sant yàlla bu baax a baax man amul sama benn morom bu ma départ man génération bokk muy génération Ama Balde Lac Rose laa bokk génération Gouye Gui. Mm. Sa Thiès Garga Mbossé man bokk sama génération sama benn morom sama génération yabu ma ak ku mu mënti doon dafa yow. nekk mu mbër boo xam la këf rek ñu tëbal la bëgg la yóbbu foo yeggu déedéet sama morom mu jeex fi mu toll nii soo ne boo ñaan dëpp bu dëppee tamit day jox ay rek mm. waaye amul benn bu bees muy bëreet dama jaar fu war a jaar ñafe sama laaj ba egg ma ne ak mu mënta demee mun ko ko bañ a supporté war nga bañ ma supporté nga waxal ma lu ma neex bu la neexee mais fu ma yegg si dama ñafe suma laa laaj ba yegg si te ba ma ñëwee tamit taamu ma boo xoolee ñu naan début booy ñaar dafa difficile poids lourd parce que ñaar ñi gën a ñaar yi gën bëri yëpp ñaar ñu gën a métti poids bëree ci poids lourd muy Tapha Tine ak de Guiers ñoom laa dagale. donc sama yoon foofu mu metti parce que ñi may bëree ay ponkal lañ yoo xamante ni duñ jël yenn risques yi te am nañ doole te seen poids am na mu toll donc foofu sama yoon foofu mu metti parce que su ma ñëwoon su damay taamu am na ñoo xam ñu ngi ci làmb yàgg yàgg yàgg bëriwul ak Lac de Guiers am na ñoo xam ñu ngi ci làmb bay yegg bëriwul ak Tapha Tine bu leen neexoon ñu yegg mais man defuma loolu dama ñëw bëri ñu mu bëri mais wax ji nga wax nii Fadel nu mu la jaaxalee jaaxal moo am moo jaaxal ñëpp Balla Gaye dama lay wax dama nga faju boo ñëwee boo ñaam mi ngi fi da ngeen a war a bëri hmm. mais dama la faju boo boo ñëwee ngeen bëri war dama wax boo ñaa ak Balla bëreetuñu Balla yeeg da mën nga bëri boo ñaa bëreetu loolu moo fi am amul ay dem gauche dem droite donc ñun xam loolu moo tax ñu xam li ñu war a wax parce que li ñu war a wax tamit dañ ko teg ci yoon duñu jekki nekk nii rek di wax nii mun naa ñoom bu ñu ma génnee wala ñu may sànni ay traak ma génn wax sama combat tabaatine mu jeexee ci jour bi da nga mel ni ñoom dañoo daan te sama combat li ñu ci dugal seen loxo yàlla xam na ne bak seen sesar xam naa lépp mais làmb moo tëree noonu bu la neexee ñu dugal ci seen loxo amul problème waaye ma rek waa kër Balla Gaye sama combat la daggee sama combat tabaatine ni ci duggee lépp xam naa sama combat Lac de Guiers la njëkkee parce que ñun ñëpp ci mbiri làmb lañ ne sama combat Lac de Guiers yaay bi sa ñaari bët di xool Serigne Balla Gaye ci làmb ñu jàppale ko ci làmb ji ko ci làmb parce que booy ñaa waaw déglu ma rek dañuy waxtaan. ba benn lañ mais mosuñu gis combat la dëgër ibnu ñëw ci laa ma xaw ma ibnu la xam. comme naan comme naan non ko ñëw impliqué ko carrément ci combat bi. parce que boo boo ñaa lay bëree sama combat contre Tapha Tine tamit ñu dugal ci seen loxo ko. léegi loolu lépp dafa jeex ñun Balla Gaye dañ ko bëgg a wax ñun waa kër Boy Niang liñ ko waxal liñ ko manigancé tegal ko ko pour mu dem indi certificat médical bu woon ne mënu mois de mai mois de juillet lay bëri te juillet lay bëri loolu yëpp jaratu ko jarul indi certificat médical jarul leeral da nga pare pour bëre gi dama bëre gi mais ñun am nañ droit ñu bëre ak yow ñu def seet benn adversaire parce que laakul am nga droit tànn sa adversaire ne kii ngaay bëre ak kii mais booy ñaa ak estafan am koy nangul pour bëre ku leen bëri ak waaw donc dégg nga loolu yëpp ci Père Gaston la rek ñoom suñu papa la boo xamante ni dañ ko waaw ma Père Gaston suñu boo xamante ni ñu dañ ko jox ci respecté ko mu nekk koo xamante ni ba mu ñëwee ci làmb yokkul wàññiwul dafa yokk ñun day duñu wax lii tey suba ñu wax lële mu nekk suñu papa bu ñu respecté di ko ñaanal mu yàgg ci làmb baax na li muy doxal ci làmb mais moom dafa am loo xamante ni moom liyee maag moom mu jël xaalisam jox ma donc après loolu maa ko taan moom la ak sama estaf ak moom le fait que dañ koy delloo xaalisam waxtaan la le fait que dañuy jox beneen combat waxtaan la. mais li ñu bëgg a leeral mooy waa kër Balla Gaye ñu xamal ko. Balla Gaye xam ko ñu nekk ci ginnaaw xam ko ak ay sinab kanam ñu xam ko non damay wax damay wax man waxtaanu man reetaanu man man waaw comédie wu ma quoi dama leen di wax pour ngeen xam lu may wax quoi yaa ngi dégg ñoom ñëpp ñu xam ko parce que waa kër Balla Gaye dafa am ñoo xamante ni dafa am fu ñu jaar ma ak ñoom mais dama leen bëgg a xam ñoo xam ne fii yàlla rek moo fi nekk fii kenn mënu dara suñu borom rek moom mën suñu borom moo mën moo tax ñun loolu lañ xam ay taalibe Cheikh Issa Sall ba mais dañoo xam loolu moo tax wax bi mu bëri bëri yëpp déggoo ñu wax ku ñu sànni ay xeer génn wax ñu ay da ngay wër rond-point ay lii ak lii ay dóom bëri yëpp déggoo ñu wax mais suñu moom dafa àtte ñu xam ni yàlla rek fi nekk kenn te ñun faaraluñ kenn ragaluñ kenn ak ku mun doon Boy Niang nag dafa nekk mbër boo xamante ne boo fa dafa am ñu mu àndal man yenn yi le fait que seede yàlla le fait que sax sama combat ñoom mën nañ ko tourner wëndeel ko parce que sama combat ñoom mënul yomb boo xam ne ay sinab wane ay gàllaaj ay sinab yëg ci ay guub moo rek déstabilisé man nekkuma daan mbër boo te man doomu Pikine laa man doomu Pikine laa du ma nelaw donc am na loo xamante ni Balla Gaye xam na ni Balla Gaye moom mi nga xamante ni carrière am presque du mu bari bari cinq ans six ans moo ci des moom nga war a wutal yoon di ko fu nooy muy dem ci Gris wax ma laa Boy Niang mi nga xam dafa nekk ci yoonam moom bu yàlla defee jàmm booy xool yoon di ko wutal yoon muy wut fu nooy naan day tourné Boy Niang bàyyi ko fi dem jëli Gris ak yooyu parce nga ni dafa nooy non ñun duñ doxee de waaw non boo jàppee loolu yow dafa ni da ngaa war a defaru ci Gris parce que ñun xam nañ lépp xam nga mi ne làmb ñoo fi ne man lu ma wax fii balaa ngoon day dem géej waay foofu tamit loo fa wax balaa ngoon dafa yegg parce que dëkkuwaay bi parce que dëkkuwaay bi waaye si ñu ngi may jàng seetaan en direct mais si pour wax ni dëkkuwaay bi soriwul te boo tegee réunion sax waxtaan tënk balaa muy fajal Pikine da koy yëg parce que ñun dañoo roofroo ñu ak ñoom ñoom tamit loolu lañ am fii. donc nag booy toog ne noo sama mbër bi fi mu toll ni baaxagul wala pareegul li ma def direct ci booñaa il faut ma jër gii di defaru soog a ñëwaat seede yàlla loolu duñ ko nangu ñun waa kër booñaa non ko nangu forcé wul leen ñu ñun. il faut waa kër Balla Gaye ñu xam loolu ne Boy Niang forcé wul na dafa war a bëre ak Balla Gaye léegi léegi Lamine bu ñu bëre wul na dem bëre ak keneen ma continuer sama carrière ma continuer ak keneen mais rafet nga Boy Niang toog di xaal Balla Gaye muy teg ay affaire naan kii laay bëreet kër teggil ma xëcal kii non non non loolu amu fi de da ngay dem am droit bëre ñi ngay bëreel man tamit damay am droit ne man tamit dootuma bëre ak yow damay bëre ñi ma war a bëreel mu jeex taag Gaston nag li ma sekk ak man li nga xam dafa ko yëkkati jox ma ko loolu sama staff dem nañ ci moom te ñun ak ñoom la nañ ci waxtaan ak moom lu ñuy delloo lu ñuy la lu ñuy jox jox ñu beneen awaat lu ñuy jox leen avance. Hmm. loolu moo fi nekk. Hmm. am sa diggante ak Balla hmm. donc am loo xam ne moom lañ koy waxal. waa kër Balla nag bu ñu bëggee Balla Gaye lu nooy nañ ko di feneen. wala comme Ahmed Aïdara fan yi moo nekk maire Guédiawaye mu woo ko fa muy jaay juuti wala dara foofu day yomb. loolu mën na yónni dama ne bu fekkee da nga bëgg lu yomb ah. Balla Gaye bu fekkee dafay wër lu nooy. Ahmed Aïdara fi mu toll nii mooy maire maa ngi ko félicité sama grand. na ko fa woo tee ko benn place muy jaay juuti. muy daggu juuti. dafa bëgg non non loolu amul dem ku xam mu xam ni boo bëggee bàyyi fi booñaa dem giri mënoo ko teg ci palmarès. giri 2015 da nga am victoire sabato moo ko dama expliqué rek. grand bu baax la ko ngi koy nuyu. mënoo ko teg ci victoire. mënoo ko teg ci palmarès. mënoo ko teg ci performance. parce que 2015 boobu man teg naa ci six combats. am naa ci trois victoires donc mënoo ko teg foofu. merci te tàngal ceeb la yëpp. Mm. donc nag yow da nga koy teg nii rek non sama mbër ni ma ko gisee nii pareegu pour affronter Boy Niang naa ko wutal benn combat en attendant mu defaru Boy Niang toog xaar non non man dama toog xaaral benn mbër ak ku ci mën doon pour ñu xam loolu bu baax. Balla Gaye dafay dem bëreeg Gris Bordeaux Boy Niang dafay bëreeg keneen te du ma dëppaat di bëreeg moom moom tamit bu mu dëpp di bëreeg man ku nekk na jël sa yoon ñu connaître suñu yoon mu jeex tàkk loolu waa man Boy Niang maa ko wax. te nekkul loo xamante ni dama génne nii di wax boo gisee ma woo xam nga ñi leen woo téléphone neen bu ngeen ñëw donc staff bi ñoo wax te loolu lañ wax loolu lañ teg ci taabal bi terewul ko mu bële keneen de am na ci droit mais ñun tamit am nañ droit ñu tamit xool keneen loolu moo fi nekk. instant bi ñu gis nga bëreeg ne Balla Gaye euh, du bëri Boy Niang mhm. ci moment boobu ñu bëri ñu ngi doon polémique naan est-ce Gaston du Balla du Aziz Ndiaye moo nekk ci ginnaaw mhm. ñu dem ba benn moment tey nee nga nee nañ Balla Gaye dafa feebar dafa dem faj mhm. bu ñëwee bu wéree day bëri Gris bu wérul day bëri Gris Bordeaux bu wéree bëri yow est yi yëpp di laam-laam que ni Père Gaston Aziz Ndiaye mu ngi ci ginnaaw da dëggal loolu wala bi ngay contrat bi da nga jàppoon ne Gaston nga signé wala Aziz Ndiaye mu parce que man Père Gaston moom laa signal. Père Gaston moom moo wax ma. te Père Gaston mën na sëkk pour tëgg beneen combat bu mag sax bu romb Balla Gaye. mën na ko sëkk macha allah comprendre nga donc moom laa waxal keneen ku ne ci ginnaaw wala ngay wax ci ginnaaw wala ngay def sa ruube ci ginnaaw loolu yaa sa affaire la. mais nag waa kër Balla Gaye ñoom. ba ñu génnee wax ma li ñu may wax yëpp. waroon ñu def li ñu waroon def waroon nañu am grandeur. bu ñu bëree Bombardier pare waroon nañu am grandeur ñoom it génn wax. Hmm. waaw parce que boo dalee ci kaw boo ñaaw wax ko déstabiliser ko waxul lu ne mu daanu nga jubilé kontaan wax li ngay wax yow tamit ba nga ñëwee ci géew bi ñu daan la ngay sulaat ci géew bi war ngaa mën a génn wax de waaw wax ni nag man daan nañ ma jër bu leer may soulager géew bi neen sama ndigg dafa métti te jël stade bi yëpp fecc ko riita bale xëy na da ngaa sa ndigg day métti yow war nañ génn wax ko de ñoom ñoom tamit leeral quoi ñu laaj leen tamit ci booñaa li ngeen ko wax ñoom ñu leeral parce que moo tax ma xëcc la rek na fii yàlla rek moo fi ne kenn newu fi ku fi def da ngaa téye dara ko suñu borom moo ko teg ci loxo ñëpp bu ñu waree bëre maa ngi moom dañuy bëre bu ñu warta bëre te Sénégal yëpp bëgg suñu combat te waruñoo bëre duñ bëre loolu mooy sama kàddu ci wax bu nekk Balla bu ñu waree bëre di leen bëre bu nu warta bëre te Sénégal yëpp bëgg suñu combat te waruñoo bëre duñ bëre parce que ñu bëre ñaara koy def man ak nu mu mën demee su ma bëre woon ñu daan ma wala nu mu mënti deme su ma jëlee avance su jàmm signé ko damay pare rek bëre am nu mu mën doon ba sutu maa ma wan ni kooku maa ko mën yaaga wax ni du ma moroomam ci làmb yaaga man li ma fi def defu ko fi yàgg maa wax lu ne sànni ma xel lu nekk donc kooku nag soo bëree seen combat toj nga bëree mu jeexal suñu borom indi safaan moom mu bëre jeexal suñu borom indi safaan parce que yàllaa ko def ñu ñaan ñi ba ñu jot avance xamuñ ku nekk da nga def da nga am victoire donc ñëw bëre moo fi war am amul sax waru am sax débat donc bu débat ñëwee rek ñu dañuy jël suñu responsabilité. mais boo ñaax doo ko mën a faral di ko est-ce boo jógee ci ñaari défaite nga am ci Lac de am ci Tapha Tine par euh, xam ne làmb làmb amul combat ma ne de xamul parce que ñaari mbër am na fu ñuy toll kenn ki day daan kenn ki taxaw loolu moo ne ci làmb da ngay daan dem defaraat sa carrière jax taxawaat moom mu daan mu wàcc dem defar dem bëre ñeneen loolu fi ne lu mu mënti doon bu ñu bëree. lu mu mënti xew kenn ki day dem bëri ñeneen keneen ki dem bëri ñeneen loolu moo fi ne ci làmb parce que gis nañ fi combat bu ne te sama combat Balla Gaye Boy Niang mënoo ko wax di tudd yërmande du combat bu ñuy négocier du combat bu ñu yërmande du combat lu ñuy ñaanante dara ñaanuma ko mayuma waa noonu la moom mooy bay glace moom mag mi nga xam ne da ngay bëgg lu nooy yow yaay dem bàyyi glace ñun ay xale ndaw lañ ñun làmb fi ñu toll fi ñu toll naa business suñu de ñun ñu toll nii Boy Niang carrière fu mu toll nii nekkul business nekkul wut xaalis nekkul dajale ay combat wut lañu yóbbaale ñun tolluñ foofu de ñu dañoo toll ci def làmb le fait que sax ñëpp mun nañ d'accord ne bu leen neexee ne defaguñ dara ci làmb mais dañ toll ci def ci làmb parce que ay xale lañ te làmb dafa nekk ci kanam. léegi ñoom ba ngeen signé quatre combats. Hmm. Père Gaston ba mu njëkkee bëri moom bañ ko laajee da ne xamaguñu instant bi kii ak kii lay bëri. ku ci mel ni makkal jël nañ ko. Hmm. mais ñoom dañ ne Balla dafa dafa feebar. Hmm. su ñëwee dañ xam kan lay bëri mais est-ce que tey comme dañ ne kii lay bëree pare. non non waxuñu loolu. Makan suma frère man ngi koy nuyu bu baax waxuñu loolu saan na interview am ñun tamit dem nañ fa. staff bi moo tax man la bul jàpp ne boo ñaaree teg micro yi rek ngeen di wax staff bi dajaloon nañ woo Père Gaston dem seeti ko waaye ñu xamal ni ñu Balla Gaye dafa dem faju ji bu ñëwee wér day bëreeg yow mois de mai bu wéru day bëreeg Gris Bordeaux juillet maanaam loolu day wax bu ñu wax la. te mu nekk boo xam lax boo xam ne boo nekkee làmb rek yéen ñi dund ci làmb xam ne di nekkul wax bu cohérent dama naan la noo Balla dafa dem faju bu wéree di ngeen bëre mais bu wérul juré ngeen di bëre loolu mooy wax bu tegu waaye ñu xam ne nag am na leneen lu ci nekk leneen lu ci nekk nag moo tax ñu jël suñu responsabilité te ñu am ci droit nag ak ku a doon dañoo am droit comme moom ni mu amee droit ne xëccal ma kii arrièreal kële ñun dañoo am droit ne ñun tamit duñu bëri ak moom na ñu jox benn adversaire te loolu kenn mënu koo déesu ñun kenn mënul ne Boy Niang amul droit wax loolu ah ah Boy ak koo nekk ci làmb munoo wax ni amul droit wax loolu comme moom am na droit pour tànn adversaire am ne kii laay bëree ak estafam ndax dañoo war a xool nooy ñun tamit dañu am droit ne ñun tamit duñ bëree teg moom am nañ ci droit. am ci droit làmb mooy jàpp date wax tey mbër yi jour tel ngeen bëre bala mbër bu merci merci boo boo boo déggee wax la foofu du ma njëkkee waxtaan bi mooy ne dañoo ànd dem seeti promoteur bi xam nga bi dañ koy déglante bu nu ñu répété di répété waat rek dañoo def délégation dem seeti promoteur bi te promoteur bi tamit li muy doon doon suñu kilifa doon suñu papa mu wax ñu ay kàddu ba ñu signé contrat bi mu wax ñu ay kàddu ne Balla Gaye day bëree Bombardier yow nga bëreeg Tapha Tine boo leen paree ngeen bëre. ba pare Sénégalais yi tamit xam ni Balla gay bu muy bëre bu muy jël booy Niang Boy ñaa rek la am comme adversaire hmm. amul kenn ku fi njëkk a jël Boy Niang avance am na ku ko njëkk a signé bu fekkoon ba ñuy signé contrat père Gaston production muy suñu papa Gaston dafa ñu xamal ni bu ko combat bi jeexee Balla wala naa ko taxawal yeneen ñaari komba mais day bëri giri soog a bëri yow ñu négocier tak su boobaa duñu wax de parce que ñoo ko wax nangu toujours si contrat bi. ñun dañu bëggoon xam euh, ay professionnel bi ngeen di wax. yéen mbëri. léegi dañuy signé contrat pourquoi jamono jooju toogoo ak sa avocat. nga jox këyit yi mu xam lan ngay signé ci contrat lan moo waral ñu ngay signé yow amul avocat ba léegi boo xam ne këyit yi moom buy signé contrat bu toll noonu. xaalis bi toll noonu loolu bëri na la ngay jël pourquoi joxoo sa contrat bi sa sa avocat. déedéet déedéet man du ma doxee noonu. man bokk naa ci mbër nga xam ne xaw ma keneen de mais man am naa avocat te sama combat Pape Thialis xam na keneen xam ne suma combat yëpp sama avocat dafay it contrat mais contrat bi li ci nekk mooy date moo ci nekku te date bi lu date newu ci parce que ba ñu waxee promoteur bi ne ko date bi daf ñu xamal ni mënoo am date parce que kii amagul date Thialis kii la tëgg te loolu tamit dëgg la boobu Thialis jàppagul date mi ngi nekk ci problème combat am donc moom bu jàppee date caas jàppaat day puusaat donc mënul jàpp date tant que caas jàpp nee na ma bu leen caas joxoon date léegi gannaaw suba ma wax la date bi ngay bëreeg Balla Gaye donc dafa am loo xamante ni contrat lañ koy signé dëgg la mais am loo xamante ni ci parole la da nga may wax ma la muy contrat moral boo xamante ni dañ ko sekk ak pergation ba muy bëree ba muy ba suñu contrat benn combat bu nekk ci moom donc Balla Gaye bu paree loolu la loolu la wax loolu la contrat bi wax loolu la keneen wax léegi nag bu ci yeneen amee père kon ku nekk day jël sa responsabilité Balla Gaye am na droit jël responsabilité ak ñu mu àndal ne lii laay def ak lii mais tamit nañu nangul ne Boy Niang moom it am na droit moom ak ñu mu àndal ne bëratuma ak Balla Gaye damay bëri ak keneen dañ ma jox beneen combat bu question jox na ma avance dama jox beneen combat mu bëri mais bëriwuma ak Balla Gaye am naa ci plein droit kenn du ma bañal loolu waaw contrat bi su fekkee loolu la est-ce que delloo avance war na mën a am non waxuma delloo avance de loolu yeggun fa dama ne la loolu waxtaanu staff bi la ak père Gaston le fait que dañ koy delloo avance wala le fait que dañuy jox beneen adversaire loolu ñu nag moom la mais suñu diggante ak Balla Gaye laa la xamal ni moom bu demee ba jël Gris Bordeaux pour adversaire tànn ko pour bëreeg moom ñu tamit dañuy am sañ ñu ne dootuñu bëre ak Balla Gaye duñ toog di ko xaar dootuñu bëre ak moom am nañ ci droit. Lamine loolu kenn mënu ko dàq suñu. non non non moo tax man la loolu waxtaan la. staff bi dañuy dem toog a waxtaan ak moom suñu papa la suñu lépp la ñu respecté ko trop jox ko cër Iba daf ñuy wax ni daf ñuy jox beneen beneen avance ngeen bëre ko mooy avance bi ma jox dama lay jox beneen mbër ngeen bëre ko. wala mun la amul benn problème dama la bëre ji boo jotee def loolu amul benn problème suñu père mais côté boobu du ñu am problème côté bi ñu am problème mooy ñu la moo tax ñu bëgg leen ko xamal parce que dañ gis affaire bi amee ba léegi dafa mel ne waa kër Boy hmm. xam commencé xam da ngay gis ay Shinab Katam wala Balla Gaye wala keneen ak keneen dañuy génn sax non ñun bëreetuñu ak ñoom non na wiiri rond point xam nga mel ni ñun dañu yor benn bu deful woon ci laamu dara kenn du ko boole ak Balla Gaye Boy bu ñafe woon ci laamu di bëre ak Tapha Tine Boy Niang bu ñafe woon ci du bëre ak Lac su fekkoon dama ñëw sama moroom yëpp daan ma damay toog xaar mais am na nit tamit àdduna bu mu toll nit lu mu mérito foo ñu jox ko parce que ñëpp mi de làmb lañ nekk. làmb Océan yi dafa war a jeex ñoom Tyson dañuy dem ñoom Balla daf ñëw ñoom Balla day dem yeneen ñun dañuy ñëw keneen day ñëw làmb dañu bokk fexe mu dox. yow la yow la yow te saa boo xeexee la say daal dañ lay nax du yow. Balla li ko gars yi affaire du moom de da nga ay morom say morom ci làmb ñu war laa mën a daan nga war leen mën a daan loolu mooy làmb. waxuma la war a mën a daan gars yi de mais gars yi dañ ko war a mën a duma daan ko tamit parce que làmb moo ci nekk donc booy bu ñafee ba yegg si fu mu rex ngay ne sa rakk imposé ko mu duma ko daan ko daan waa géej waaye su ma fi leen mën nañ daan mais dama am mérite pour bëree ak ku mu mënti doon waxam na moom de ak ku mu mënti doon ci làmb donc donc sama carrière ñoom dañ ci impliqué te du yoon Boy Niang ñun li ñu jàppoon mooy le fait que nga bëri Tapha mu daan la mm-hmm. ñoom ñu bu fekkee da ngaa daanu soxlawul. Mhm. ñoom le fait ñoom defee est-ce que du force force combat bi daa war a taxaw wala ñu annulé combat bi. waaw actuellement loolu la ñu doon xaar. léegi nag moo tax ma moo tax moo tax moo fi nekk. moo fi nekk dañuy taxaw bëre ci moment bi ñu war a bëree bu ñu bëree bu dafay dem xool leen man ma dem xool leen mais waa kër Balla Gaye comme ñu xam ma wax leen ko ñu dégg bu ñu jàpp ne mukk boo ñaa day toog di xaar Balla Gaye ñu jàpp ne mukk ñoom ñoo yor monopole bi di diriger di wax ne kii laay bëre après kii après kii mhm. ñun duñu daan mbër yooyu ay xarala yi waaye arène nationale bi dañ koy def nu mu war a def bu ñu bëree ni mbooloo di topp suñu ginnaaw te duñ caaxaane combat duñ nekk benn mbër taxaw suñu digg bopp dañuy eh, def fee ngay war a bëre contrat mooñu si ñu bëre bu ñu nga xool leneen am nga ci plein droit man tamit dama dem xool leneen suñ nga xam ne combat bi du nekk mënatul nekk sa yoon mm-hmm. parce am na loo xamante ni buñ ko ci dugalee néewal doole taman kenn du ma néewal doole Sénégal laa dëkk Pikine laa dëkk borom mbokk laa kenn du ma néewal doole ak fu mu mënti dem parce que amateur ñu ngi ibbi seen bët di xool te Boy ñaa boobu yëpp dafa toog ci rugam noppi rek ñu koy néewal doole di ko seen ay xeet di ko wax day di rond point bu daanu day def lii bu daanu yooyu yëpp mën naa ñàkk muy képp ku ànd ak Balla loolu yëpp dafa mënoon a ñàkk parce que laa moonu boole te yu ay nawle lañ te Balla fu mu amee safaan kenn du ma fa bi père Gaston waxee loolu seen staff lan lañ wax ci loolu. père père suñu staff lu ñu wax ak moom wax nañ ko ko. mooy lan parce que man déglu ma rek. li ñu wax ak moom wax nañ ko ko. moom parce que ci wax bi war nañu ni waxtaan bi jeexul waaye ñun làmb dafa xat am na looy waxtaan ci làmb léegi dama koy yëg. làmb dafa xat. Mm. am na loo xam ne duñu bàyyi ba mun a xës ba ñu dem rek raser ba pare ne lii moo ne après ngay wax c'est trop tard mais dañuy wax ñëpp xam ba ëllëg. bu ñu gisee boo ñaa jël ay matukaayam topp ko bu mu sët dem ci fu mu ci mënti dem ak fu ñu ma ci woo ñoo xam ne boo ñaa dafa ne ci yoonam parce que képp koo xamante yéen ñii di su naa si làmb képp ko xamante ne defu ci gauche droite da ngay xam ni Balla balaa muy bëre kenn boo ñaa la war a bëreer hmm. dañuy waxtaan dëgg rek dëgg rek moo neex hmm. waxuma nga faral ma waxuma nga faral Balla yow waxal làmb rek teg waxuma laak nag man ma ñëw ñaax par avertissement yow nga ñëw daanu jël bu leer nga dem seen la da daanu donc yaa ngi ma doon bañ mais da ngaa ñëw def pire xam dafa am combat yoo xamante ne suñu borom moo koy teg boo xoolee combat bu mu commencé bu léegi saa bu ñu bëggee suul combat boo ñaa rek suñu boobu day sulli boo ñaa Balla Gaye foo bëggee teg tànk rek suñu boobu da koy sulli parce que laam mu tëddee noonu te laam dafa am yeneen lu mu àndal am na loo xam ne bu imposé wu rek dafa imposé moom ba mu ñëwee ci war a bëree grand yi benn grand ne fu di polémique dañ ko jox sansam mu bëree ñoom daan leen loolu lay làmb mais bu ñu ñëwee combat bi taxaw nga ni noo boo ñaa mi bu daanee duñ bëree moom dëgg combat bi suñu borom ne déedéet du demee noonu nga ñëw ne Boy Niang daan nañ ko léegi day wiiri rond point suñ boobu na diree yow yaa gën a ñaaw day defet du demee noonu. macha allah ma fan maa ngi lay charré bu baax di nuyu presse bi yëpp. mais est-ce que pare nga pour dindi tuuma ko lool nga wax. da nga ni supporteru Balla Gaye yi ak xeer yi ñu lay sànni ak ñu lay wax. d'après tout ak amateurs yi ni ñu gisee combat bi nga bëri ak Lac de Guiers combat bi nga bëri ak Tapha Tine pare nga pour dindi tuuma sa diggante ak ki nga xamante ne mooy Balla Gaye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 waaye noonu la ñu ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp hmm. di remercier waa Pikine maa ngi sant di gërëm waa Pikine parce que ñoom ba muy fii laa débuté ba toll ni ma toll li ma fi am fii laa ko amee ba ma amee tamit fii def muy am kër dugal sumay waajur ak sama famille toog Pikine ku fi ñëw su ñu buntu baa ngi noonu gis nga nu ubbeekoo lu ñu am ñu bokk ak yow donc ñoo ma jàppale ba yegsi fi ma yegsi donc ñu xam ne ma am ndam ma ñàkk ndam yëpp ñoom laay xeexal ak fu mu mënti doon te mosuma ci dellu ginaaw léegi laa téye gën téye léegi laa ne gën a fonk léegi laa gën a xam ne ñu représenté ci man di ñaanal mbër yi fi nekk te am combat suñu moom dafa leen ndam ñu amul combat suñu moom leen combat di nuyu kilifa diine ak kilifa aada yi waa kër Cheikh la Sadou Abi waa kër maa ngi leen nuyu jox seen cër ak seen wàccuwaay di nuyu suma xarit ak sumay am di jàmm yi may jàppale yëpp ak ñuy sonn ci man sama combat tafaatin bi deux ans la def metti na trop yaa ngi dégg sama combat tafaatin bi deux ans la def métti na trop ñu jàppale ma di nuyu Ablaye Timbo mi nga xam ne dafa ma jàppale monsieur le maire Abdoulaye Timbo maa ngi koy nuyu di nuyu Ousmane Batora gannaaw bu baax de jàppale na ma Ousmane si Cheikhou Kouyaté Idrissa Gana Gueye suma frère yooyu di leen ñaanal jàmm jàppale nañ ma ñëpp di ñëpp jàmm yaa ngi dégg jàppale na ma waaw diggante Siteu li ma ciy wax dafa leer boo xoolee Siteu sax wax na ci parce que man jàmm gën laa dëkk su ma jàmm gën laa dëkk mooy sama maam bi jur Pierre de Gaulle jàmm gën la dëkk am fa kër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 ne moom musul dégg boo Niang laaj ko du bëreeg Boy Niang man tamit loolu laay wax ci moom. du du dégg mu toog fenn defee ma. donc fulla ak fayda ak ngor moo war man moo nekk ci man bu fees del man tamit duma ma ko laaj. dëgg dama ne la ma ak Siteu moom ki xool làmb na xool dëkkandoo bu rafet rek làmb kóol ne rek ñu bëre suñu carrière parce que am na làmb yoo xamante ni lu mu yàq moo bu muy defar te jaru ko yaa dégg.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 waaye xam ne li ñu fi wax ni yëpp wax moom bu jotee rek dañ koy wax ñu leeral lépp ñu xam waa kër Boy Niang position bi ñu taxaw ci lépp lu mën a ñëw loolu rek maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp faadal maa ngi leen di remercier nuyoo bi dama ko joxee Papa Ibakan dina ko jox yéen gars yi ñëwoon yëpp di jégalu di wax ni ñu ngi jégalu ñëpp di gërëm tafaakaan waaw ñëpp perxës waaw gis nga maa ngi nuyu ñëpp waaw waxtaan bi tàng na tam mais xam nga yaram bee tàng rek yaa ngi dégg moo tax ñu ñàkk mais ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp autorité Pikine yëpp ñu ngi leen nuyu yaa ngi dégg kilifa yëpp ñi nga xam ñu may jàppale parce que dafa am ñoo xamante ni bëgguñoo génn mukk bu ñu toogee réunion ba wax sax ay kilifa waaw ay kilifa lañ ci dëkk bi ñoo xamante ni bu ñu toogee wax sax ba pare ñu ne ma boo ñaam naa bu tudd sama tur bul génn wax ma baa ma rek dans l'ombre ma liggéeyal la wala ma jàppale la ñooñu boo gisee ma génn wax sax ñoom ñoo ta ñoo xam ne su ma waxoon seen tur dinañ na déedéet waaye àdduna noon la nit bu lay bëgg a jàppale te bëggul feeñ danga koy bàyyi ci rek di nuyu sama papa ma ñu suus di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu tamit ñi nga xam ne dama ànd ak ñoom ba ba léegi ñu dégg lu man ñu jàpp am fan si bi gaa yëpp capaacuri national international la dégg seen mbër waaye noonu la àdduna noonu la yaa di sant ñëpp di sant Abdou Kañ di sant waa Daaru Rahman waa kër famille Kañ man xëy famille Kañ rek laa am mu jeex tàkk waa Daaru Rahman waa kër Cheikh Samb waa kër maam Cheikh Rim waa Sambe suma kër papa di nuyu sama papa di ko gërëm bu baax Père Dégool di wax ne gaa yi nag mooy loolu père dugal koo ci a dama a attaqué sama père la waaw noonu la de du ñëw sama papa Barson mu gudd fan wér caatu Barson di ñaanal tamit combat bii di ko xam ne noonu la ndeysaan waa père Barson yàlla na suñu moom defar ko jàmm bu baax suñu papa la père Mansour Diop suñu xarit ñu koy nu non final man moom boo bëggee dégg ñun moom nee naa la incha lu jot yomb te boo xoolee ñun ñëpp lu ngi sant suñu xol moo dafa jot gaa yi indi coupe bi man ak équipe dama ci xarit yoo xam su may nit lan comme ni ko waxee Pape Cissé moom Pikine Gana Gueye Cheikhou Kouyaté combat bi xaalis la ma jox Gana yëkkati xaalis jox ma su may frère lañu Sadio Mané Kalidou Koulibaly ñoom su may frère lañ maa leen di ñaanal jàmm Saliou su suñu frère waaw di leen ñaanal jàmm di leen wax ne fi mu toll nii ñu suñu xel suñu xalaat suñu doole yëpp mi ngi si ñoom final bi moom foofu ñu woppaay di ko wax gars yi xam naa Gris mooy président bi di ko wax mu woo gaa yëpp fu nekk rek sa ñaari paa wala ñett nga dugal ko ci bagage mu jëlee liste Cameroun la xam Égypte ku ci gagné ñu jël liste bi sànni ko gaa yi paa yu nekk jox yoo rek ñoo joor ak yooyu gaa yi yeew bu ba ñu jël coupe bi ñëw ah ñu ngi sant Père Zoro ñu ngi sant ñëpp gaa yi kontaan naa nag ci gis yéen kontaan naa ci waxtaan ak yéen den wax ni rek dafa am tolluwaay la quoi waaw Malo mi ngi foofu gis nga daa dem pour jëri coupe bi moom xam ne man dinaa leen Malo bu demee rek coupe day ñëw moom suñu frère la maa ngi gërëm ñëpp di gërëm ñëpp kon bu rafet kontaan nañu maa ngi jégalu nag ah waaw di kontaan ci ñëpp gars bu jeexee rek jeex na